balu ak ñépp te di len bal ak tay ñaan borom bi subhanahu wa taala mu bokku ñu jéggal ñu ñépp bokki sunu khutba tay mi ngi jëm ci am solo gi ñaan am solo ci dundu doomu adam ahmiyatu du'a fi xayaatil muslim importance bi nga xamne ñaan am na ko ci dundu doomu aadama ñu xamne ñaan ci bopam ngàndaayu jullit bi la min ladun aadama ila qiyaami saa ba suñ borom bindee aadama ak léegi ba saar yi taxaw ab jullit ngàndaay li mu war a ngàndaay loo mooy ñaan ñaanit nit dana def dana ko def ci barkeb nit ku baax rawatee nag ci téereb suñ borom bi subhanahu ndax xam ngeen adama aadama alayhi wa yalla jéggel na ko ci barka muhammad ca muhammad gëné gul jamono kon lolu su mborom moko jéggelé اللهم إني أسألك بحق نبيك الذي خلقته يو يالا ماغ لاي نيان تي سا حق تي درجة يونت بيغا خا نني ياكو بين سون بروم نكو كيف عرفت محمد ولم أقلقه يا نو خامي محمد تي من بيندكو محمد mu ne ko inni nasartu ala qawaami al arsh fa wajadtu lawhan maktuban laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam damaa xooloon oras gis benn alio bi nga xam ne yaa ngi yaa ngi ci bind sa tur yow yàlla toftal ca tur yonante bi salaa sallam ma xam ne saw tur boo ko bindee koo toftal ci saw tur ku ñaan ca barkeb kooko nga may ko lam bëgg su borom na ko sadaqta lawlaahu maa xuliqtu lak wax nga dëgg bu du woon ak muhammad du ma la bind su borom daal koy jiggal lépp loo xam ne su defoon na kon ñaan bokk yi min la dun aadama ila qiyaami saa ma waral suñ demee ci yonent yi fi jaar mën nañ ci tudd yonent yàlla noo ci njëlbeen woote na nanga mi at ñu ko gëm bariwut waaye gis ngeen ba mu ñaanee borom bi suñu borom da koo nangul ñaanam rabbi la tasar ala al ardi min al kaafirina dayaa yàlla mbooleem kudub yéefar rek bul bàyyi kenn ñépp nang leen alal ndax woote na ay ati at amul kenn ku kuy ñi ko gëm tuuti la waaye mu tàllal loxo yi ñaan borom bi subhanahu wa taala sun borom nangul ko ñaan googu mu yonenti yàlla noonu ñu gis na tamit nam nangu la ñaan gi am tuufaan moo dikk rek ñu ci bari daal cay jaare sun borom alag leen jëm waaye gis ngeen firawn diggante firawn ak Moussa ci yonenti yàlla Moussa ñaan gam ñaanoon sun borom subhanahu wa ta'ala yaq alalam deng kaske xolam ba yalla dogal ñaan gogu musa ñaanon ci diggante fir'auna sun borom dafa wuyu ak ñaanam num ko wuyo dafa labal fir'auna mel na ku jël ban bu bare bare def ko ci giñimam kon yonent yoyu bokki dan dañ daan tàllal seen loxo di ñaan seen borom waaye bu ndikkee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kuy ku nu bind moo tax xaswatu badar bokk yi xam ngeen junni yéefar musrik ak 313 ci ay saxaaba fa seene jàkkaar ñoo ñoo xam ne ay junni leen yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam xayma bi ñu ko mbaaraloon day tàllal loxo yi di ñaan bakkaalaam wadd Seydina Abu Bakar ne ko ndax yow yàlla dalaa jéggalul ndax yàlla dafa waxul ci alquran ne jéggal na sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj mu ne ko afala akuna abdan shakur ndax du ma nekk jàmm buy buy sant yàlla waaye gis ngeen tàllal googu mu doon tàllal loxoom lam doon ñaan mooy yow suñ borom nga ñaay li ñu digoon rikk waaye nag ñu ko jox waaye gis nga la ko yàlla def yàlla def ko nangul ak ñaanam moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jullit bu ci nekk muy bu góor wala bu jigéen war naa farlu di ñaan borom subhanahu wa taala suñ borom moo ne ñaan leen ma woo leen ma ma wuyu leen kon na nañuy woo yàlla ci xeetu woowoon wu ko nit ki man di ñaan yàlla ci xeetu ñaanin wu ko nit ki man suñ borom subhanahu wa taala ngir mu wuyu ñu bokk yi ñaan ak jaamu yàlla addu'a wa ibada ak jaamu yàlla la buñ jàpp ne rek jaamu yàlla mooy julleeg woor ak aj ak aj ak yu ci aju jaamu yàlla dafa am al ay al muamalaat am al ibadat ibada yi mooy julli géeg wor géeg ci mel noonu muamalat yi nag mooy li ñuy jëflante suñ biir yi ñuy jëflante suñ biir loolu ñu tudde al muamalat ca ku ne xam ne ne assalaatu ci luga mooy dua mooy ñaan kon julli gindi julli sax ñaan la kon moo waral julli bi bu mu tàyyeel digganteem ak boromam saa su ne mu muy tàllal ay loxoom di wax di ñaan borom bi subhanahu wa taala lim doonee ibaada nag la nekk muqu la ibaada bu doon bu doon jaamu yàlla ab bopp la yuur gi nekk ci bopp bi mooy ak ñaan bu doon jaam jaamu yàlla ci boppam maanaam bopp bopp la muqu la ibaada gi mooy addu'a mooy ñaan kon bokk yi dañuy ñaan moo waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na addu'a huwa al ibaada balaa yeeg musiba yeeg tiis yeeg métit yi benn noonu lan am ci kaw suuf muy ñaan amuñu baneen li mën a yëkkati balaa mën a fanqi natt mën a fanqi ay musibaaki coona lenn képp la muy ñaan kon ñaan udwul balaa moom ci boppam mooy noonu balaa mooy taxit mu def mu aalaja ci yu baree baree bari ci dundug doomu aadama moo tax sumbura wax ci alquran yow muhammad jaam bi de saa yu ma woowee xamal ko ne ko fa inni xarib ujibu da'wata da'i isa da'ani kon nag fal yastajibu li jàmm bi saa yu ne saa yu saa yu saa yu yëkkatee loxoom di ma ñaan yow Muhammad na nga ko xamal ne ko man yàlla ku ko jege laa ca ku ma ñaan man yàlla ma may la ku ma woo it ma wuyu la kon na ni farlu ci ñaan ma waral bokk yi ñaan dafa bokk ci ngëneel yi gën a màgg yoo xam ne day jañ balaa laata balaa di ñëw. man ngaa ñaan suñu borom bañ a wàcce balaa ba ndax nit yàlla yi daa borom daana leen xamal lu ñëwagut ñu xam na bu egsee mën naa faagaagal lu bari ñu ñaan suñu borom suñu borom tiñ leen ca loola kon suñu borom mën na laa xamal ne am na lu war a ñëw waaye bu ñëwee loole mën naa alak doomu aadama yi bari nga tàllal say loxo ñaan yàlla suñu borom daal di fanq balaa boobu ñaan it balaa mën naa wàcc tolof tolof mën naa bari musiba mën naa bari Lo lepp am ñu diko gis nga talal say loxo ñaan sun borom yëkkati loolu bañ ko defati ba mu sorele ko kon loolu lépp bokk na ci njariñ li nga xam ne euh, njariñ ñaan la yonent bi sansam nee na amul benn julit boo xam ne daf maa ñaan dafa ñaan sun borom lu dul yàlla daf ko nangul ñaan nga moo xam mu xam ko moo xam mu ñàkk koo xam benn yàlla wan ko ci àdduna xamal na ko wala sun borom dencal ko bu àllëgee mu ne ko lang ma ñaanoon mi ngi nii ñaar yooyu yëpp benn bu ci nekk suñu doo koy defal ab doomu aadama wala yàlla gis na am na musiba mu war a dal ci kawam mu fegal ko ko waaye nag loolu la tax suñu di ko def mooy li feeg waajay ñaan defut bàkkaar dogut ak bokk kon bokk yi ndeke ak bokk lu am solo la ñàkk a dogu bokk di ko jokk lu am solo la bañ ko dog waaye tamit fas yéenee sàmm ba boo def yenn bàkkaar yi doo ko def ngir suñu borom bañ laa wuju loolu am solo la bokk yi ñaan mooy wettilib jullit ci ay tartar ci ay metit ci ay musiba yoo xam ne yàlla daf koy wàcc ñaan mooy taxit jullit bi xéew suñu borom ko xéewal jañal ko ay ay naqar ak ay moo waral yonte bi saa salaam nee na ku yàlla ubbil buntum ñaan ubbil na la buntu yërmaande daane nit ki kat lépp lum ñaan suñu borom subhanahu li gën ci jam jam bi di ñaan yàlla yonent bi saa sala ne mooy jàmm bokk yi koomul jàmm doota la lekk koomul jàmm doota la naan koomul jàmm doota la julli koomul jàmm doota la def len jàmm yàlla gi li muy met li muy neex neex neex boo amul jàmm doo ko tal kon li gën ci jàmm bi li muy ñaan mooy jàmm moo ab julli li ñaan rek mooy ab jàmm kon nanuy ñaan yàlla mu ñuy may jàmm jam biir jàmmi bitti suñ borom dañu ko defal aduna lum neex neex nit ki yalla denk wursak wala mu denk la xam-xam wala mu denk la kanta ak lu meuna denk bo andut ak jam rek daniko do do do do do am jam, do do ko dunde nam la wara a neexe kon jàmm yonente bi sansam wasallam nit legen gën ci limi ñaan moy nay ñaan jam, yal na yalla may jam jam rek mo am solo fu jam yendu fanaan fa ñafa fanaan ak yendu yeb dañuy am jam, waye fu jam jugee yéen du fanaan fa bis ba boobu fër-fër rek rek moom moom la moom moom la moom la moom ñu dëkkee gis ngeen fan yii ñu toll rek li yàlla yi def dogal ñii ji faatu ñii di accident ñii di nangam ñii di nangam kenn matul jàmm ñépp a ngi fër-fëri ngir loolu loolu nag moo tax jàmm baax kon yal na yàlla defal jàmm loolu it moo taxit tey jii ndaje mii ngeen gis tey jii ñu dajee ko ci pencum borom penc mi muy penc seigne omar mi ci ndigalel ki fi nekkal seigne omar ngir ñu tawassul ci sun borom subhanahu wa ta'ala la ko ci ñom ñi nga xamne ñom la fi yalla tek sun borom def def fi jàmm def ci aduna bi jàmm aduna bi fi mu toll bokk yi li xew ci jamono ji ray gu bari yi coow yu bari yi tuumaate gu bari yi wax deug gu bari yi dara wu ko lu ñak jamm ca fii réew mii nañu nekk nag buñ amul jàmm ñu ñu dëkk réew mi duñ am jàmm mukk kon nañuy ñaan réew mi am jàmm réew mi ñu nekk bis bu amul jàmm ñun duñ am jàmm la Cheikh Ahmadou Tidiane waxoon Cheikh wax si waxoon ne réew mi ci boppam doon ko war a sang waaye ndox mii sang réew mi mooy jàmm ak ak ak ndox mi sang réew mii ñu nekk mooy jàmm ak ñaan kon maa ngi dénk saa bopp di ko dénk rawatina politiciens yek ak pouvoir bek ñep opposition yek ñep ciow yu bari yek xëccoo be xuloo nan ñaan yalla jàmm rek kum ci mën doon ci côté bu ci no bu kenn du ko tal kon yaronte bi sansam nee na woon ñaan gi gën ci ñaan yi moy ñi ñaan jàmm yalla non yalla defal jàmm bokk yi xam ngeen ne ñaan dana fank lu ñëw gut dana jañ tamit lu ñëw ba noppi te gis ngeen motax yalla bi ne kon de leen ñaan ديلن يان لا يرد القضاء الا بالدعاء لولا ترغيب لا الترهيب حديث ترغيب الترهيب برام خم خم جاني واخا نه منس نيكو جيفانديكو تي ين انامي موي حديث بو خم داي خيمم لو نيت كي تي لو باخ ولا داكوي تي تي لو غير مو باي لو بون لا بي نيك حديث بي نك حديث ترغيب اك ترهيب لا موي يالا دو ديلو لا يرد القضاء الا بالدعاء يالا دو ديلو اب دوغو لودو نيان لولو بون ديلو تي القران يمحو الله ما يشاء ويس وي ويس بيتم وعنده ام الكتاب يالا نينا من دانا فر لوما نيه دانا سخال لوما نيه تي من ام الكتاب ني بوكي بون ديمي تي بروم خام خام داني واخني لوح المحفوظ نيت تيميري اليو اك نيت نيوكو ورال اليو يوي نيو تود اللوحات المكتب والممحات اليو يوي لا يالا دي بند دي فار واي لوم خاص بند تي لوح المحفوظ موم دوت فار waye ñetti téeméeri alluwa yi ak ak fukk ak ñett yi wër lawul mahfuus suñ borom dana ci bind di far yàlla mën naa bind fii ne cinquante ans nga faatu waaye ci biir cinquante ans yi suñ borom dana dogal ab sarax wala nangam boo génnee fekk na bind na ci lawul mahfuus ne yow juróom benn fukkat nga war nga def lee mu fanqal la lee loolu lañ loolu moom alluwa yi réew la wër lawul mahfuus loolu moo ko tax ñu tudde ko allawhaatul maktab wal mimhaab moo tax bu ñu delloo ci mbindi sëñ Tuubaa day wax ne sadaqatun waxida qad tadfau sabina mitatan mina suu i faun sëñ Tuubaa nee na benn sarax bu nit ki saraxe dana ko fegal juróom-ñaar fukki deeyu ñaaw ñaaw kon nit ki nay génn sarax di ko saraxe ci yàlla doo nga tax daal wax ne tamit sarax boobu mu saraxe dana ko fayloo merum borom bi ak ñaawteef ni am ndox di fayre sawara sawara waaye nee na sarax boobu muy saraxe dana waral nit ki feebar wér dana waral suñu borom jéggal ko ay bàkkaaram dana waral rek yeneen ak yeneen dana waral it ak ak laab ak jañu musiba ak bépp feebar waaye sarax ba bokk yi boo koy def na nga ko def ngir yàlla waxuma nag nga dem ci buxaaba mu ne la sawaay rayal nag wu ñuul wala yëkk wu xonq boo ko defee nangam ak nangam jëlal deret ja nga laal sa jëba nga raay ci defati nangam nangam sarax bob mom yalla taxul sarax bi yalla tax dang koy def rek ci yalla tax comme niñu yendo jang alquran ñu togg ay bernde ak ñam diko sarax ci yalla tax lool moy sarax bi yalla tax fi ni mu jëntele moy le seigne touba waxon isi duaa yanfau maytan fil khubur wa yanfau lxayya wa yujibu al ujur seigne touba na ñaan day jëriñ ab julit di jëriñ ki faatu di bijj ab yool kon nañu talal loxo yi di ñaan yalla ca bañ di déglu ñuy wax naan sax ku faatu kenn du la jàngal alquran ak kenn du la ñaanal ñoom bu buñ faatoo buñ leen ko jàngal waaye nit ku ci nekk sañ ngaa dénkaane ne bu ma faatoo na ngeen ma jàngal alquran Abdullah ibn Omar nee na woon bu ma faatoo ba ngeen sulma bala ngeen a dem na ngeen toll fi sama na ngeen taxaw fi sama bopp tollu ngeen jàng fatiha ak mujj suratul baqara sëñ bi kooku ab saxaaba la woon te bari na ci saxaaba yi ko daan digle l'imam Abu Hanbal nee bu ngeen rombe ay armer na ngeen jang fatiha ben falaq ben nas yéene ko yene len ko yow mako def boo léegi sa wàll dana la fek kon bu len deglu ñu ne ci rajo yi guddeeg bëccëg naan alquran kenn du ko jàngal nangam kenn duko def nangam bo faato nangam ak nangam seen bopp ñoom waaye ñun lin gëm nañ ko gëm ci xam ne sëñ tuba nee na isi doa u yanfau mayitan fi lqubur wa yanfau lxaya wa yujibul ujur rabbana atina fi dunia asrafa fi laxirati wa qina azab annar rabbana rzuq qulubana ba'da wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك على الله بعزيز طول لنا عمرنا صحي لنا بدنا وحب لنا رد وتوفيق يا الله ودمرا كل اعداء تدربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن معيسا لنا من شر سي حسد مع الشر فمن والسر يا الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك ولسائر المسلمين امين